mu set loolu waaye ànd ak yar ak teggin sëriñ Modou Mouride Mbaye moom lay bàyyi mu léebu ak xasee sëriñ Touba yi comme ni mu ko tàmbali defee toirkaal la fépp euh, ñu ko bàyyi rek mu daal ubbi xasida yi ubbi sëñ Moustapha li nga xam ne mu di jotaay bi sëñ Modou bisimilah. yaa rahmaanu ربي بما يسرع لسان خد فجاء بجاي أفضل لمن لله خد لجاء ربي بما يسره الحسان خد فجاء بجاي أفضل لمن لله خط لجأ حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتيا ملأ محمد صلوات الله في أبد عليه في اسمه كل بكلا أدعو إلا إلا سيامت موائبها بجملة الخلق ما يختار من برا ناجيت جل أهوى من وكرمني تكرمات وكل من لعن بريا رحمن حبل الجميع للخلق رحمة من يغني أني سر من قرآن وقرأ أتمت المستوى عن كل مغزدة وترحم الخلق يا من جلهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن خواتي ارحم جميع الورى يا هاديا رداء موت ما قدنا القلب من درر بجاي أبدا لمن لله قد لجا موت ما قدنا القلب من درر بجاي أبدا لمن لله قد لجا asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Seydina Ousmane. ñoo ngi lay nuyu bu baax. di nuyu bu baax képp koo xam ni mi ngi jàkkaarloog ñun tey jii ci leeral TV di télé bu am solo boo xam ni. mu ngi bay waaram ci ëttu lislaam bi. rawatina këru diine yi. ñoo ngi ziyaare kilifa kër gi. di nuyu ñi nga xam ni ñooy les hommes de l'ombre man fu ma dem rek ñoo ñu dama leen di beral nuyoo. muy ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw caméra yi. taalibe Aji Malick si mhm. macha allah di sama soppe nga xam ne laata may jàng daf maa gis rek daanu mhm. barke Cheikhul Khadim mhm. yëkkati addi ju bëri jox ma waaw sëñ Makhtar nu koy nuyu bu baax di koy ñaanal Cheikh Mouhamad Régi di nuyu Cheikh Moustapha Dieng mi ñu bokkal plateau bi muy borom xam-xam di nuyu téléspectateurs yëpp fépp waaye nekk ci àdduna bi di ñu seetaan biir réew meeg bitim réew ñoo ngi lay nuyu jërëjëf Serigne Modou Mouride Mbaye tubaarkàlla ni ma ko ba mu jàngee xam ngeen ni que la ma wax lépp mu ngi ci moom ci civilisé gi ci mën a jàng gi ci fasaaxa bi ak euh, tarkal polyvalent bi macha allah. <laughs> fi mu béy bu ko tegalee awkati mu jàng waaye wane ma ko si mën naa rajas tarkal la ma den rek jàmbaar ji nga xam ni bu nee tekk nga naw ko ci yar mag bu yaru dafa jafe. Mm-hmm. sëñ Moustapha waaye bu waxee nga naw xam-xam bi. Mm-hmm. àddinaa ngi la doon xaar ñëpp ngi lay xaar ci Leral TV ma bàyyi la ñu ñëpp ñi nga xam ne ñu la bàyyi xel ci Leral asalaamaaleykum sëñ Moustapha.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 sang-sang yi ah, di yonti yàlla met alayhi salaatu wassalaam ah, ñoo ngi leen di ziyaare waaye di jiital nag sunu ziyaar sunu kilifa sunu eh, lépp di sëriñ eh, Muntaqa Mbàkke ah, di ko ñaanal yàlla guddal fanam te yàggal eh, taxawaayam ba naal gi mu fas yéene liggéeyal maamam bu tedd ga di Xaadimu Rasuul mm-hmm. sunu boroom defal ko ci lu kowe bil Mustafa li banal xuddusul madrasatan biha yazulul aza wal jahlu wal eh, kabat ah, muy ñaan goo xam ne nag xaadim rasul moo ko ñaanoon boromam ah, ne nag ma may eh, lu ñuy tuddee madrasa ah, madrasa nag buñ ko waxee mooy établissement mooy jànguwaay woo xam ne bés bu taxawee eh, biha yazulul aza dana fi jële lor wal jëxlu ak réer wal kabat ak coono mm-hmm. ah bés bu fi réer jógee lor jóge fi coono jóge fi mm-hmm. ah kon Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér waaye ah, waaye ñoo ngi ziar ah, sama xarit ah, di sama wëlëre mm-hmm. di sama lépp nga xam ne sabab bu ñëw ci barab bi ci moom la jaare muy sëñ Modou Mouride ku ko dégg muy jàng xam ne li muy jàng maîtriser na ko waaye di la ziar sëñ bi sëriñ sëñ Ousmane ñoo ngi koy ñoo ngi lay ziare bu baax ah di la ndokkeel ci sa générosité ak sa euh, disponibilité euh, yàlla na yàlla dolli tawfiix euh, barke Xaadim Rasul jërëjëf jërëjëf sëñ Moustapha Tall yi ñu ngi leen dokkeel bu baax baax ci mm-hmm. sa teewaay ci kër gi mm-hmm. ku ne xam ne nam mooy Kébara nam moo télé waaye mm-hmm. bi la sëñ Mourou woowee ci njàppandal bi ñëw nga tegoo ñu benn condition bu la neexoon ni ah balaa maa ñëw kat da yoon ma yónnee transport gu bëri te boobaa it wala ñu jaayante ko def ko waaye defoo ko ci woyof yi ak ñu la ci baax baax sëñ Moustapha Cheikhul mm-hmm. Khadim mm-hmm. yaatu na wax naa ko sànq ni la mm-hmm. premier safar ba léegi ñu ngi ci nat na bi ci moom waaye mënuñoo fexe ba xaajal ko sax ma la jeexal ko dëgg la tey nag ñu tàmm benn thème mu sëñ Touba ak xasida yi mais laataa xasida yi mu li mu daan jiite mooy alxuraan alxuraan la bàyyoon nga développé ma tuuti ci Serigne Touba ak alxuraan alxuraan waa ah, Serigne Touba mooy jëmmi alxuraan moom Cheikhul Khadim waaw ah, moom Cheikhul Khadim wax ni Serigne Touba alxuraan buy dox la ci kaw suuf waaw ah, boo bëggee gis alxuraan jëmmi alxuraan ngi dox ah, ci ko suuf xoolal Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ah, ndax alxuraan nag tibyaanan li kulli shay'in mhm. waaye wa wa rahmatan mhm. waaye wa bushra lil muslimin la yàlla wax alxuraan dafa ñëw ngir leeral bépp mbir mhm. waaye wa di njub wa rahmatan nag di yërmande wa bushra nag di mbékk lil muslimi ñeel bulit hmm. ah, eh, inna haza al quran yahdi eh, lillati hiya aqwamu la yàlla wax hmm. mooy yoon wu gën a te gën a leer ngir àggale nit ki ci eh, boromam hmm. waaye li ma ci wax rek comme ni nga ñëwee ci li ma bëgg démontrer mooy mooy sëñ Tuubaa mooy jëmmi alquran Euh, bi muy teg li ñuy tuddee premier pierre bi muy tabax jumaa ji ñuy tuddee jumaa njaarim mhm. euh, keroog bi muy tabax bi muy teg premier pierre bi euh, dafa jàng aaya bi nga xam ne yoon ci yàlla ibrahima alayhi salaam jàngoon na ko mhm. keroog bi muy taxawal ponk kaaba gi mhm. te mooy wa iz yarfau ibrahimul xawaida minal bayt wa ismailu rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim aaya boobu la sëñ Tuubaa jàng daal di randu tuuti Euh, teg première pierre bi daal di rangu tuuti kàbbar julli ñaari rakka mm-hmm. euh, bi mu sëlmalee eh, maanaam euh, mu ni alhamdulilahi rabbil alamin sëñ maam Diop Dagana wax na ci téerim bi di Irwa Nadim ni mm-hmm. sëñ Tuubaa liggéey na juróom eh, eh, jumaa njaareem diiru juróom-ñeenti at bi jumaa ji noppee Euh, mus ñu faa julli waxtu te wàcce wuñ fa ab kaamin. macha allah na bu ñu julliwaan suba daan nañ wàcce ñaari kaamin. suñ julliwaan tisbaar wàcce benn kaamin. suñ julliwaan tàkkusaan wàcce benn kaamin waaye bu ñu julliwaan timis daawuñu wàcce kaamin. ndax nee na ñaari kaamin yi suba yi benn moo daan yóbbaale bu timis bi. waaye bu ñu demee bu guddi ajjuma dañuy wàcce juróom-ñaari kaamin. nee na juróom-ñaari kaamin yu guddi ajjuma yi ñoo daan ëmb. juróom-ñaari gée yi nga xam moom lañ daan julli ci biir sama bi macha allah mu wax ni moom sëñ Maamlum Dagana dafa gis ci téere bi ñuy tuddee euh, Zaadul Maadi fi Hadi Xayri Ibadi mm-hmm. mu gis ni euh, yonent Yàlla met alayhi salaatu wa salaam Euh, maanaam ñi ko daan bindal alxuraanul karim fukk lañu woon ak juróom benn mhm. euh, bi ñu nekkee njaarim ñi daan euh, bindal xarim rasul alxuraanul karim mhm. fukk la ñu woon tam ak juróom benn mhm. boo demee ci téer bi sëñ maam Jóob Dagana wax na ni ñi daan liggéeyal yonant bi juróom-ñeent la ñu woon sax bokkoon na ci soxna suñu tuddee al al barakatu umu ayman nee na umu ayman ah, bi ñu nekkee njaareem ñi daan liggéeyal xaadim rasul juróom-ñeent lañu woon mhm. bokkoon na soxna suñu tuddee Awa Sarr mhm. waaye wax na ci biir téere bi ñu nga daan bindal alquranu karim xaadim rasul ah, wax na ni sëñ tubaab mës na leen woo ci weeru koor mhm. ci ñaar fukkeelu fan ak juróom benn mu ne leen dama bëgg euh, ngeen bindal ma ab kaamin hmm. te bëgguma ñu ne ma weer wi feeñ na te tegu leen kaamin bi sama loxo ndax di ngeen ko def waaye laataa weer wee feeñ euh, teg nañ kaamin bi ci loxo yi macha allah waaw keroog ci loxoom dañuy ndax mos ngeen a gis euh, ku bind bindlu wala ku bind kaamin ci diirub Euh, ñetti fan nga xam ne bind nañ kaamil loolu day démontrer Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul doon gi mu doonoon alquran mm-hmm. ah xiraatuha kanzi mm-hmm. ah, wa jaa'i wa xizzati mm-hmm. uniltu biha kawni labdallahi za siqi ah, nga xam ah, eh, ci baatu ci ci jàng alxuraan la ko amee kon nga xam ne dundam yëpp alxuraan la taalif na ay xasida yu bare ci alxuraan yaa kitaabal karim anta abibi wa xalili wa xabla kunta habibi a ah, ya kitabal karim yo teddumo tedde bi oh. ah, eh, eh, eh, ya anta karimu anta habibi yaay sama soppe ba xalili te sama xarit ah, xabla kunta tabibi yaay sama docteur ah, ah, yaay sama docteur suma feebare yaa may faj dem dem ba ko naan ko anta xizzi yaay sama tedd nge mm-hmm. anta kënzi yaay sama trésor mm-hmm. anta jaa'i sama daraja yaa xizza kulla nabibi mm-hmm. yaay tedd nge kuy borom xel nga xam ne dund gi mu dund moom xaadim rasul alquran mhm. nga xam ne dund dundam yëpp dem na ba wax sax ne xawaytu fil quranun mhm. asirran wajaba an laa yazaalu abadan mustajiban sëñ Bamba ne làq naa ci alxuraan hmm. secret boo xam ne li ci war mooy dama koy nëbb rek ba ëllëg waaye ëpp naa feeñal ci àdduna waaw ah, ku dem ba wax ni xafistu ma anzalahu jalilu ah. ah, xabla nuzulihi ma tartili oh. nee na bi may mokkal alxuraan man xaadim rasul boobu alxuraan wàccagul ci yonent bi kon nga xam ne dundam yëpp ci alxuraan la koy def ci ñaar yi la taxawoon kitaabu rabbiya hmm. gadan an nisi min baadi kawnil mustafa raisi alxuraan ni sama wéttal yonent bi sama kilifa xalifa xam ne ah. dundam yëpp da ko jeexal ci alxuraan ni sama wéttal yonent bi xam ne dundam daf ko jeexal ci dundal alxuraan dem bay wax sax jàpp naa alxuraan di gumba di ngooyee ki ko koy womat nga xam ne kon dundam da ko consacré ci alxuraanul karim nga xam ne bëggoon na alxuraan bëggin goo xam ne yamewul ko yamalewu ko woon ak dara bëggam toll na ci léegi na siiw mooy daan nañu alxuraan teg ko ci kaw lan tëdd suuf waaw tëdd mooy li ma la wax léegi yaa kitaabal karimu hmm. anta abibi wa xalili wa xabla kunta tabibi kon ñu xam ne moom alxuraan dem na ba wax nan binaa u xaari il xuraanu yaxtali bilan sifalin inda baaxin munzili ne na tabax yi ciy jàng alxuraan day hmm. kawe te dootul suuf yi nga xam mooy aji aji des gi wàcce téere bi hmm. te mooy sunu borom kon nga xam ne moom alxuraan lim ko jaraloon musu koo jaral dara li mu li mu fi mu tegoon alxuraan musu faa musu faa teg dara nga xam ne yeggoon na ci bëgg gi gi mu bëgg bëgg alxuraan ak ngoy ci ma ngoy gi ma ngoy ci alxuraan ci laa tam ci laa tàqali ko samay njàqare hmm. nga xam ne dundam yëpp da ko consacré ci loolu waaye eh, ñëw ngi lay dolloo kàddu bi incha allah tarkalla loolu la ubbeeg ci Serigne Touba ak alquran hmm. ndax xam nga ne mënuñoo tëb rek na Serigne Touba xasida yi hmm. laata loolu tarkalla ñu ngi ma maa ngi maa ngi yëg sama ni saañaa ñëw na tarkalla Ismaïla maa ngi leen ndokkeel sama réalisateur bi maa ngi yëg ni que ni ñëw nga tarkalla maa ngi leen ndokkeel bu baax a baax tarkalla mi ngi noonu loolu moo nekkoon Serigne Touba ak alquran eh, dégg ngeen lim ci développé macha allah bàyyi sëñ Mourou Mourid moom it mu ubbi waxtu xasida ci doo ko dugg nag ci dëgg-dëgg waxtaan bi Serigne Touba ak xasida yi mm. yallahu bil Mustafa sindite yallahu وبقليلك إبراهيم ينلاه وبكليمك موسى الخدير وبسئيب وائس ما إلي الله وبسليمان إن يونس اليسير وزكريا يا يا أدي الله أرون يوسف يزيد وآدم ودا وزير كفلي سالت يا الله ويوسف وبيت سخير وخير أنبياء ورسل لك ينلاو وبملائكته رسول مسوهدين جبريل ثم بميكائيل ينلاو وسائب مقيس ربي لقابدي الواقل على أسرى إلي الله وبسابتي سم من لولياء محن ولا منين من الأماري الله بمالك الماذا يا غبي يا بي حنيفة أحمد المحمود يا اللهم بل صلاتنا تسليم عليه الله ولا لوافبي والأسواق الله وبلانا عليه مرابيا فياتا وابلنا أنذا فيه الدارين يا الله ودمر الغلا دائم نريد بنا قال الوصول لنا يا الله يا الله وكلنا آسما من كل ما هدر ناجنا من بلاء يا دهر يا الله ni la sëñ Modou ubbilee ci xasida yi bi ñuy tuddee sindiidi xam nga baat bi <laughs> euh, suñ ko xee ci wàllu araab baatu sindiidi mooy sang mooy sang mooy sang sang waaw ah, yàllaahu bil Mustafa yàlla xam nga bil ak mu bijaa benn lañ ah, mhm. bil mhm. maa ngi lay ñaan ci daraja yonti yàlla met alayhi salaatu wasalaam yàllaahu bil Mustafa sindiidi mhm. moom mi nga xam moo yonent bi mooy sang bi allahu akbar waaw bi xalilika ibrahima waaw ah, ibrahima yàlla oh. mu ñaan ci barake eh, yonti yàlla ibrahima mi nga xam ne mooy xaritu euh, euh, euh, mooy xaritu yàlla bi xalilika mooy xaritu yàlla ubbi kalimika Moussa kallaamullah mooy kii wax ak yàlla mm-hmm. moo tax mu ne wa bi kalimika Moussa saalihin mm. mu ñaan ci daraja yonent yàlla saalix ñaan ci daraja yonent yàlla Zakaria mm-hmm. Daawuda mm-hmm. Zulkifli Aaruna Lóot ñaan ci mboolem yonent yi bi mu ekkee ba ci yusufa mu ne yi xayrihim ah. ak ñeneen ñu dul ñi minal anbiya ci yonent yi wa rusuli nag ak les envoyés waaw ah, ñiy yónni ah, mu ñaan ci barke malaaka yi jiital ci jibril hmm. miy dox mission yi teg ci mikael mu ngi xam nga yor taw bi teg ci azrafil hmm. nga xam ne moo yor al buftu bi mhm. la trompette ah teg ci azrail mooy malaaka mawti mm. ah ñaan ci daraja yi saaba yi mhm. ah jiital ci ña Ababacar Siddiq ah teg ci Farouk mooy Omar ah teg ci nuuréy ni mooy Ousmane teg ci abu sibtey ni mooy bàyyi ñaari séti te mooy Alioune ah ñaan ci dara ji giir yi ah jiit jiital ci teg ci sax malaaka yi ah def naa malaaka yi mhm. def naa ñëw naa ci malaaka yi ji waaw teg ci giir jiital ci giir yi imam Shafi mhm. teg ci imam Malik teg ci imam Abu Anifa teg ci mhm. imam Abu Abu Anbal ñaan ci dara jey euh, archi bi euh, archi c'est le lieu où réside le bon Dieu. Mm-hmm. mooy barab bi ñu askanale suñu borom ndax suñu borom amul lieu mais arche bi dañ ko askanale. Mm-hmm. ñaan ci barke kursi yu mooy la chaise bi nekk ci biir arche bi ah, ñaan ci daraja yi ah, kursi yu arche bi. Mm-hmm. ñaan ci daraja lawul mahfouz. moom la ñu tuddee la tablette gardée. Ah, ñaan ci daraja yi xalam ba muy plume bi. bi bind ci lawul mahfouz. ñaan ci daraja alquran ñaan ci daraja tawret ñaanagul de ñaan ci daraja injiil ñaan ci darajey zabuur uh-huh. ñaan ci darajey lépp ngi ci biir téere bi ñaan ci darajey waa kër yonante bi ah, ñaan yàlla moo tax mu ne ballix salaati wa taslimi alayhi law walaali wa saxlu azwaaji allah waaw wa asbilana alayna hmm. rabbi afiyatan allahu lana alxasda ah. yàlla yàlla na nga sëmbërtal alayna ci ñun rab yow yàlla aafiyatan jaam wahab lanaa yàlla nag ñu may. xas na maanaam ni nga koy waxee nii sëñ Modou. nga ko jëlee benn par benn mu koy benn par benn. waaw mooy naa ci ñun rabbi yow yàlla aafiyatan jaam wahab lanaa yàlla nag ñu may xas na nag ab jubluwaay fi daari ni ci ñaari kër ودمرا كل أهداء تدير بنا يلا نجا إكرازي ودمرا كل أهداء يلا نجا إكرازي بيب نون تدير بنا نك بني لورسي قبل الوصول لنا لجيت نيتاب بسم الله يا من لا كل شيء خادر ولا yow mi nga xam ne xaadirun yow borom kàttan gi yow mi yow mi di borom kàttan gi arsh bi nga xam ne Moustapha mooy lu ñu yemmoo dem xalban xaasi mu yàlla nag ma may xol bu ragal yàlla ah, mu xol bu ragal yàlla nag te toroxlu nag maa la koy ñaan yow suñu borom. wa tawbatan xubilat. tawbatan yàlla nag ñu defal tuub bu ñu nangu. maaminatin rufiat. maaminatin rufiat mooy yëkkati gu ko kawe. maa zawjatin ak soxna saaleet nag bu sell bi diini nekk ci diini islaam wakun muhisan lana min sharri nag ñu musal min sharri zi asadin ci ayu ku iñaan ma sharri famin wa wa sharri aynin mooy ayu bët wa sharri sigrin mooy ayu njabar wa sharri xalqin mooy ayu mindéef insi imu nag mooy doomu aadama ay doomu aadama mag jinnihim ànd ak ayu jinne wa sumi ak ay tooke إني جعلتك في دارين yi ni ci ñaari yaa sixati yow mi nga xam ne yaay boroom kàttan gi isnan asina kaaraange gu ñoŋu nag gu ñoŋu mooy isnan asina wala taqil nii la nafsi foofu nag day ñaan yàlla moo tax kuy jàng xasida gi ba egg si foofu fi mu toll nii na nga dugal sa ñaan mm. ah falaa takkil nii mm. ilaa nafsi yàlla bu ñu bàyyeeg suñu bopp oh. faalika kun kon ñu alku kon mujji bani at xuuka la daa bañ woy bi damm ah. mujji bani yàlla na nga nangu at xuuka suñu ñaan ay chemin fu nu mën a nekk oh. eh, waaw boo xoolee xasida gi mm-hmm. ah, ñaan na ci eh, lu ñuy tuddee eh, zalzalatin ci mooy tremblement de terre. ah nag mooy tartar. wal faqri ak ñàkk ñàkk gu metti attache moom la ñu tuddee maral mooy sécheresse. wal jiw ak xiif. xiif ju metti wa fitnatin muy fitna wa muy épidémie. xàqi nag mooy mooy la mooy lab. Ah, ñaan na ci biir li ñuy tuddee arin wa bardin mooy seddaayu ëpp ak tàngaayu ëpp mhm. kurbatin nag mooy njàqare mhm. dalaalatin mooy sankute xarajin moom li ñuy tuddee la paralysie mooy laago mhm. ah, jununun mooy la folie xalabin mooy nooteel mooy nit ku ñu ku ñu emprisonné ah, lu demee ni ñaan na ci biir mashri moom la ñuy wax la transformation mooy nit koo xam day génn fii rek jinne jommal ko soppi ko ras fi mooy mooy ku ñu piégé ah jusaamay ni mooy ñaari feebar yi moom la ñuy tuddee euh, ngaana ak siti ah, nga xam ne dem na ba ñaan ci biir sax euh, lu demee ni fudu hima hmm. ñaan na yàlla musal ñu ci moom la ñuy tuddee scandale public hmm. mooy gàcce gàcce yi pénc hmm, ñaan na yàlla musal ñu ci gàcce yi pénc nga xam ne dem na ba ba ci biir xasida gi sax Ah, mu ne ñaan yàlla mujj mujj gu rafet hmm. wajal lisaani wa xalbi oh. ah, zakirayka maan indal hmm. mamati mal iman yallaahu wa najini wa jamial muslimina maan yàlla yàlla nag mu musal wa jamial muslimin yàlla na nga musal mboolem gi di delluwaatal ginnaaw walidati walidati yàlla na nga musal sama waajuru jigéen ba yàgg mu ne amin yàlla waxfir lana wala wasibana ak soxna si moom maam jaara watuf bina wa biha fil awliya waltuf yàlla yàlla na nu ñeewante wa ak moom soxna si Eh, fu ci teg wa bihaa ak moom soxna si fil xabri fil hëwli ci tiitaanga yi ci biir bàmmeel tajaawas wa anha tajaawas mooy yàlla bu ko jëlal maanaam bul jëlal jëlalal ay mbiram mm-hmm. anha tajaawas wa iya an amanan لا تجاوز إيانا يأمن فما لنا سواك وأنت الباو يا الله أنا تجاوز موي تجاوز موي يالا sunu borom fi barsaqin yërëm ko maa xabri maa xabri ak ci bàmmeel kullaha wasaran kullaha wasaran na nga nekk ci di wiir waayam wa min kurubi wa xawfi nabiyallah wa najji yàlla yàlla laa taxtabirha. laa taxtabirha. bi maa laysat. bu maa laysat bi xaajaratin yàlla bu ko examiner ci lépp lu mu àttanu. wala tu xayib rajaaha. wala tu xayib rajaaha fii ka yàllaahu am ndax amul yaakaar ci ku dul yow. wa asqinaa maaha. wa asqinaa maaha min maa'i kawsar. yàlla nañ ko nandal ci déggi kawsara yi. ixtartahu min jamil xalqi yàlla. ixtartahu min jamil xalqi ci barke ki nga xam ne yaa ko tànn ci mboolum mbindeef yi. man kaana. su man kaana yurshidu za xayib képp ku ku yursidu za gay yi mooy jubal képp ku booy képp ku bew euh, wa yursidu za kufrin mooy mooy àll képp kuy boroomu kéeféer wayan suru man yattaaka yàlla mooy dimbale képp ku ragal yàlla muhammad muhammadin moom muhammad maska mooy mooy su mooy tànnee fi tànnee fi xaayi dinaa moo nuy wommat di jannatil di jëmee ci àjjana yi bi nga éternisé wa yowmal asri ak bisub taxawaay ma yàlla yàlla na yàlla julli ci moom daay man nag ba faw abadan nag ba faw ak képp ku nangu ànd ak moom ba yomal ba bisu diine ba tama yomal xiyaama ku ñu bi diyaada moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ñu bi diyaada Seydina Muhammad faaw ñu xool benn xas boo xam ne dugg ci waaw waaw loolu loolu faaw ni ni ni mu ko indee maanaam yaa ngi ci ñaan gi ñaan gi mais bi nga duggee ci yonent bi mhm. da ngay gis maanaam ni ni ni mu soppee xasida gi mhm. ndax buy wax ci yonent bi day bis da soppe bu wax ci soppeem day li muy wax da koy gën a yëg moom mu seex. waaw waaw moom buy wax ci soppeem. fa kullu man anfaxa fii ah. mawlidihi fii ah. ah, maalan bi gayri sarrafi walaw bi xaddi dirhami fa innahu kaman xadar yowma xunayni wa sabar wa yowma badrin wa nasar xayral wara mufaami gis nga moo tax gis nga li may wax ni sëñ Tuubaa hmm. dundam yëpp da ko consacré yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne dem na ba wax sax guddi gàmmu dërëm donte dërëm nga dépensé ngir jëm yonent bi da nga mel mel ne ku teewe bisu badar ak bisu guddi gàmm gi rek waaw fa kullu man an anfaqa yi hmm. képp ku li di dépensé mawlidihil musharraf yi ci guddeem bu ñu teral bi ba yàgg mu ne maalan bi xari saraf yi donte dangaa dépensé ci lu dul yàq walaw bi xadri dirham yi donte dërëm nga def ngir jëmmi yonent bi ci guddi fa innahu kaman xadar da nga mel ne ku teewe yow ma unéy ni tamay xare unéy ooyow ma badrin da nga mel ne ku teewe bi su badar mhm. wa nasar nag te nga dimbale xayral waraa ngeen gi mu ndef allahu waaw ah, nga xam ne euh, gës bu mhm. xasida la goo xam ne Cheikh Bamba Xaadim Rasoul Euh, wax na ci yonentu ne wax na ni sax képp koo xam ne euh, wut nga lu demee ni maanaam bàyyi bu guddi gàmm wut lu demee ni suukar ak ndawal def ko ngir jëm yonentu ci guddi gi euh, da dajale mboolem yiw ji guddi gi làmboo nga xam fa kullu man xat xadara mawlida afdalil wara muazziman mubashira bi suukarin aw lahami fa innahu xad zafira bi maa yuddimu bushara wala yulaaxi darara yow timaami ummami nga xam fa képp ko teewee hmm. mawlida afdalil wara guddi ngën gi mu ndéef nga def ko nag muazziman ngir màggal guddi gi sëñ Bàmba nee na mu bashira nga bégle ci guddi gi ñu ne ko bégle ci lan mu ne bi suukarin ci lu demee ni suukar hmm. aw laxami wala ndawal lax mu mooy ndawal hmm. mu ne ki def loolu fa innahu xat zafira hmm. ki def loolu gañe na ñu ne ko lu mu gañe mu ne bi maa yu dimu bu shara lay saxal mbég ca moom te nee na walaa yu laaxi dararaa ki def loolu dajak lor yow ma timaami umma mi te mooy bésub rajak loo ba te mooy yomal xiyaamati kon sëñ Tuubaa dundam lépp doo ko consacré woon yonent bi ah, xasida yi ñuy jàng xayru mm-hmm. zaqiratin mm-hmm. ah, lizik taabudi marhuna mm-hmm. ah, bi Mustafa Muhammadi nee nañ li gën ci li nit kiy denc di ko yóbbaale mm. ëllëg yomal xiyaamati mooy tag bu yonent yàlla alayhi salaatu wa salaam moom sax na ci ba dem ah dem ba wax ne zayantu nazmiya bi zikril muntaxa zayantu bi zikril muntaxa wa artaji bi zikrihi kulla tiqa ah nee li taaral sama mbind li koy may valeur mooy tudd gi ma ciy tudd yonent sallallahu alayhi wa sallam waaye wa artaji bi zikrihi ma hmm. yaakaar ci googalal tudd nga koy tudd la kurlartiqa bépp yëkkati ko wallaahi madi uhu zadi ilal hmm. jinaani ah, wa junnati an jumlata niraani sallallahu alayhi wa sallam tagg yonent bi mooy sama yóbbal ba àjjana hmm. waaye tagg ko mooy dox sama diggante ak mboolem sa waray nga xam ne tagg yonent bi dundam yëpp dem ba wax muhammadun zikruhu unsi oh. nee na tudd yonent bi mooy sama wéttal wa mafraati tudd yonent bi mooy sama mbégte wa nuuru xalbi mm-hmm. ak ah, tudd yonent bi mooy leeral sama xol ah. mooy sama noflaay mm-hmm. dem ba wax sax ni wa huwa rajaiya ah. fi daarin yaxdu allahu akbar Muhammad wu ma nekkee ci sukuraat. allahu akbar ak may yor ci biir bàmmeel ak ay yomal xiyaamat yi. foofu toll ci yonent bi. ba àgg ci boo tudd gaa yi baax yi nag. na abdallahi il fudala inna al kawaakiba yuxfiha taqisu hmm. bul nattali mu ibni doomi abdallah ak gaa yu baax yi ñu ne ko lu tax mu ne innal kawaati kii yux fiha si maaro maanaam bu jant bi feeñee hmm. biddi wi suux ah kon raamal waraa nay la ah, mushri ayna lahu wal fadlu inda rasulillahi ah. garaa nay déggal Bamba raamal waraa nay la <laughs> fadlin رام الورى إلى فتح مسرين له هم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والفضل عند رسول الله alwara mboolem mbindee fi nay la fadli ñuy daw fu ne di fa sàkku ji ngëneel te xamuñu wal fadlu ni ki ngëneel hmm. xaraaru ma nga sax dàkk inda rasulillahi ci yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam anta lazi utiita qima nubuwatan wa anam bayna almaari wa tibi yanjale ndeysaan dugg na ci xasida gu doy waar muy ban muxaddimatul amda ah, mur foofu baax la nabiyun law shaanun asimun mubayyanooy bilaay kenn du yonent baa dafa ne yonent bi nabiyun yonent la waaw ah. ah, nee na rasulu nag ku nu yónni la mu ne xayru xabbinte muy ngën gi jaar mu ne wa seydinte di sang moom seydina waaw mu ne xalilun xarit la xabibun soppe la wallaahi laysa yow nu ñu dët muy wàcce moom yàlla allahu akbar mislahu ku mel ni yonent bi watawa balal baraya xadim jalab sàppnu buwatuhu ab yonentam ah. xablal baraaya feeñ na ah. xaddin ja xaddin jallat na xablal baraaya ah. allahu akbar loolu sàpp xëynal jaddu fi tiini yu sam nee na keroog bu ñuy dugal sunu maam aadama ca ban ba hmm. fekkoo yonent yàlla mat alayhi salaatu wasalaam biitu na nga xam ne maanaam moom yonent bi eh, maanaam moom fi mu àggoon ci bëgg yonent bi yegg na ci wax ne boo demee juróom-ñaareelu asamaan yonent si bi ahmada lañ ko fay woowee malaaka yi ñu ngi koy woowee Abdul Majid hmm. a jinne yi di ko woowee Abdul Rahim ah. nee na waa aljana di ko woowee Abdul Karim waa sawara di ko woowee Abdul Jabbar ñi dëkk ci géej gi di ko woowee ah. Abdul Muaymin njaa àll yi di ko woowee Abdul Razaq a borom di ko woowee Abdullahi nit ñi ñu koy woowee Muhammadu Rasulullah sa alayhi wa sallam kon dundam yëpp da ko consacré yonent bi sallallahu alayhi wa ah, mooy li ma wax sànq ne kitaabu rabbi xadan xadan anisi ah. min baax di këw nil Moustapha Raïs wallaahi alxuraan yi sama wéttal yonent bi mm. sama kilifa wallaahi ah, waaw Sëñ Tuubaa rek la taxawoon day feeñ ci ay bindam bindam day feeñ ci ay jëfam jëfam moom Cheikh léppam yonent bi la waaw dem na ba wax ni yaminu rabbi mazarul mujtaba afdalu min mil il biladi zaaba wallaahi nee na wër raw du yonent bi sallallahu moo ma gën a ñu dugg duyul ma àdduna bi ay jamaa ak i oor ngir maanaam di ma ko terale man xaadim rasul ma wër rawdu wër rawdu bi rek moom ko gën allahu akbar ah, te da ko giñ nag yaminu hmm. rabbiya ah. mazarul mustaba afdalu min mil il biladi zaabala nga xam ne dem ne ba wax ne yu tayibul fuaada hmm. zahrul bayti maal medinati xubayla fawti hmm. nee na li dalal sama xol mooy ziyaare ji néegu yàlla ba ak medinatul munawara ma yonent bi tëdd xubay ah, la fawti lu jiitu muy wiji sama borom nga xam ne Ah, yegg na ci ah, warzuqni al yawma bihi hmm. sakina wal turi ni makkata wal médina yàlla yàlla nag ma wërsëgal ab dal te may ma ma tekk sama bët ci kaaba gi ak médinatul munawwara ma yonent bi tëdd ah, waaye nag suñu hmm. borom may na ma hmm. maanaam yoolub aj te ma màkka ziyaare ji moom Cheikhul waaw waaw moom rek ndax yonent bee ko gaar wax wëllëzi e, iqa jismi an ziyaaratihi lakkin lisaani lawu kal xal bu zawaa waaw xam ay kon yonent bi moo ma gaar ngir ma fekki ko màkk ziyaare ji ko waaye sama xol ak sama làmmiñ di jóg ci moom kon moom dundam yëpp ah, da ko consacré ah, ci yàlla ak yonent bi ah, mu jaraloon ko nag léppam jaraloon ko dundal nafsi wa diini mhm. suma ahli wal walat wa maskani lakka wa diyaatun abat nafsi eh, eh, eh, jébbal naa la sama bopp waaye da ngay jiital nag wa diyaatun abat ngay jiital hmm. yàlla jox naa la dénkaane ñu ne ko lan mu ne nafsi sama bopp wa diini ak sama diine Ah, su ma ëhli ak samay ñoñ. Hmm. walwalat ak samay doon. Hmm. waaye nag wa maskan yi ak sama dëkk waaye wii di jox naa la ko. wa hakaza ni ki noonu jox naa la dunya yaa sama àdduna wa uxraa ak sama laaxira miiras boobu laataa moo dem moo dem miiras lépp jox léppam jox yeneen desew dara léppam desetul dara allahu akbar léppam adam bay jiñ sax ne aqsamtu billahi ah. inni li nabi abadan xillun ah. wa xibbun wa ma aba u yaba giñ naa ci yàlla ni maag rasulillahi ba faw njol màkkay sama xarit te mooy sama soppe dem naa ba àgg ci njol màkk ne ma yow de loo bëggul man bëgguma lool moom Cheikhul Khadim ah, waaw dem na ba àgg ci nee na yonent bi ne ko yow. lu bëgg rek bëgg kon kooku fi mu tegoon yenent bi kenn mënu ko kenn mësu ko faa teg wàcc waay wi mu ko joxoon kenn mësu ko ko jox lim ko defal ndax bi mu bëggee liggéeyal yonent bi suñu borom la ne ko yenent bi la ñi fi ñi ne fi jiitu woon dañoo amoon soxla mu leen koy fajal hmm. kon yow ana ban soxla nga xam ci moom bëgg ko fal faj bëgg ko ko fajal sëriñ bi ne ko bëgg gi ma bëgg yonent bi te bëgg gi amul retour hmm. moo tax sama bëgg gi di njool ba ma egg fu ma xamee ne yonent bi am na soxla ne na ñeneen ñi ko ci ma sa bëgg hmm. boo demee ba daj li nga bëgg sa bëgg day dellu soit sa bopp hmm. daawuñu ko seen ah. Ah, bi mooy sëriñ Touba ak xasida yi ñëw nga ma ci nii sëriñ bi xanaa nag sëñ Modou Murit mii du jàpp sëriñ Touba nag ba yow la xew mu ne ko neexee bàyyi lan la sëriñ Touba am ak fay ci liggéey ak bëgg gi mu bëgg yonent bi waaw pay pay bi euh, li ci gën a rëy ci pay pay bi mm-hmm. euh, mooy li mu mooy mooy benn jaam nag bañ a dem safaan ba loolu rek la sëñ Tuubaa wax lay loolu rek xam nga asrif azaba naari ah. ba ci màggal gi rek an jumlati man biya taalluqu mm-hmm. min abna i zaman la wax yàlla dàqal mbugalum sawara ah. ci mboolem ñu aju ci man ci doon waa jamono ñu ne ko ñan ñu aju ci yow mu ne wa jumlatal ixwaani min aqaari bi musalal mbugalum sawara ci mbokk mboolem mbokk yi ak jege ñaale yi ñu ne ko yan mbokk mu ne fii tiini aw fi diini ñi ma bokkal ban te mooy képp ku bokk ci ma aadama mhm. ba yàgg mu ne aw fi diini wala képp ku ma bokkal moo yaatu de musalal ci mbugal sawara da cee teg nag wala ajaani bi ak jàmbur yi sax ñi mu bokkul dara tubaab ci lañu bokk musal ñëpp ñu ñoom ñu ko doon jéem a kii sax ci boole na ci ñaan ñëpp boole na leen ci biir ñaan maanaam moom bu dégg mukk si mbooloo ko jàng ci classement bi même buy ñaan al jami al wara lay wax waaw jami al wara nag muy mboolem mindii fi Allahu akbar ah, moom génnewul kenn irham jami al wara suñ ko yaa hadiyan kon nga xam ne moom dundam lépp moom njaam yi rek ko taxaw jóg ndax wax na ne lawlal qur'aanu wal hadiisu wal manaafihu muslimi maa bittu fi dunia laylatan waaxida nee na bu toon alquranul karim mm-hmm. ah, du sunna si bi du jëriñ jaam yàlla yi ne ci lëndëm mm-hmm. Cheikh Ahmadou Bamba ne na benn guddi du ko fanaan ci farkallah ah, benn guddi du ko fanaan ci mm-hmm. kon moom li ko taxoon a wàcc li ko taxoon muy liggéey di sonn mooy dimbale jaamu yàlla yi ndax moo ko waxal boppam euh, sababu xaybati ya anna allaha euh, araada an anaala min ujaa wa an akuna shaafi an li xaw mi wa an akuna xaadiman fi daw mi mm-hmm. euh, ñett yooyu rek yàlla namm na yëkkati sama daraja namm na ma doon ki nga xam maa war a ramm samay ñëñ bi ci des mooy maa war a doon diirub yonent bi diirub jamono fargal la mi ngi noonu waaye nag ñu daal di koy ubbee xasida yi nga xam ne bàkk na ko yonent bi boo déggee sëñ Moustapha di waxtaan nga xam ni ku maîtriser li muy waxtaan la mm-hmm. waaye taarkal la ci pédagogie bi mu koy waxtaanee mm-hmm. waaye nag sëñ Tuubaa xasida mi de xanaa yemul rek ci teg yonent bi de waaw mm-hmm. am na am na xasida yoo xam ne eh, da koo tëgg ci wàllu tawassul lu demee ni tuux fatuma tadarayin waaw ah, muy xasida goo xam ne xasida eh, tawassul la ah tudd na ci fukk yi nga xam ne yonent bi da leen dig aljana ah, ba noppi ñuy dox ci kaw suuf. ah xam nga bu ne eh, bi xurmati siddiqi wal faaruqi hmm. jutliya bil ixlaasi wa tawfiqi bi xaqi usmaana xaqi nuurini wa bi aliyin walidi sibtayni hëbliya fii dunyaaya maa al uxraaya an nuura wal uloo wal mazaaya oh. bi xaqi talxata wa bi zubayri wa xaqi saadi najjini min dayri wa bi saaydin wabni aw fi najjini min hmm. kulli maa axafuhu min fitani wa bi abi ubaydatin lub maayu fii ilaa janaa bi wax fi ni may win muy fukk yi nga xam ne yonent bi dafa wax ne dañu dugg àjjana ba noppi di dox ci kaw suuf waaw ñooñu la sëñ Tuubaa ñaan ci hmm. ñoom def taw suul ñaan seen barke ngir suñ borom nangul ko ñaanam mën naa la ko cité ci beneen anam hmm. boo ne Zubeyru kenn dikk nga ne nil xulafaa ñeenti xulafaa yi ñëw muy Ababacar Omar ah, Ousmane Aliou nga ne Saadun muy juróom benn hmm. Saïdun muy juróom ñaar Abu Ubaydatin muy juróom ñett Talhatun sumab ni aw fi mooy abdourahman ibnul awf fukki jeex macha allah ci la ñaan seen barke waaye boo xoolee xasida gi mhm. ñaan na ci biir ni ne wajal tawassuli ah, liman yaddu bihi sandata daara ni wax ah, fir li bihi suñ borom na nga def sama xasida gii di tuxfatu muxtadarayn mhm. mu jokkuwaay képp ko ñaane waaye daa xam ne taalibe bi mënul ñaan mu ne yàlla na nga ko defal sandata daari ni waaye te mooy texe ak àdduna ak àllaaxira mm-hmm. waaye wax firli yàlla na nga ko jéggal moom taalibe bi mm-hmm. bii nag ci daraje xasida gi waaw wali ye li wali lesi daani li nazmihi bil amni wa ridwani suñ borom yàlla na nga tabe Euh, ci képp koo xam ne ñaane na ma sama xaside gii di tux fatum tanaray yàlla na nga ko defal bil am ni ak kóolute mm-hmm. wari diwaani ak ngërëm mm-hmm. wa bi saadati yàlla nañ ko defal ak texe mm-hmm. wa bil ximaaya an jumlatil aswaa yi te musal ko ci mboolem yu ñaaw yi wal xinaaya te defal ko ak jagle waaye bi najaati min sualin wa azab te musal ko ci laajug bàmmeel ak mbugulum bàmmeel wa sakaratil mawti ak sukuraatu dee wal xisaab ak régler ga ñu régler yomal xiyaama waaye wa bi bushaaraat yi wa bi hmm. suruur yi hmm. inda mamatina wa fi nushur yàlla yàlla na ñu defal ak bég ak bégle ñu ne ko kaja mu ne inda mamatina waxtu ñu faatu wa fi nushur yi ak waxtu ñu denc macha allah da cee teg ne wa salliyan yàlla na nga julli wa salliman te nga sëlmal ala nabi ci yonent bi sallallahu wa alihi ak ñoñam euh, wa bi ak i saabaam waaye wax fir li waalidayya yàlla yàlla na nga jéggal euh, sama ñaari waajur waaye wax fir jamil ahli yàlla na nga jéggal mboolem ñoñ yi wa jumlata siha bi ak mboolem saaba yi waaye wax fiir li kulli zi ah. taalluxin biha yàlla na nga jéggal képp ku aju ci man xaadim rasul barkallah waaye wa xaqiqan saandati yaa rabbiya te yàlla na nga dëggal ak texeem yàlla na nga jéggal képp ku aju ci man yàlla na nga dëggal ak texeem da ca teg ne wal tuf bi naa hmm. yàlla yàlla na nga nu ñeewante wax xam bi naa yàlla na nga nu kàttanal waaye wukkun la naa yàlla na nga nu nekkal waaye wahab lana xusnal xitaami rabbana yàlla nag ñu may yàlla mujj gu rafet. macha allah ah amul. <laughs> wallaahi wallaahi taarkàlla mi ngi noonu ah sëñ moom taarkàlla moom buy waxtaan. du bëgg sax mu arrêté ndax fasaaxa beeg euh, taarkàlla ni mu koy waxee mu neex loolu. ak ni mu koy firee ci euh, ku ne mën koo dégg te fa muy waxee macha allah. Hmm. sëñ Modou waa Facebook bi ñu ngi lay nuyu baax di la bàyyi xel euh, ma daal di leen di nuyu rek. mën ngeen a bàyyi seen xel ci seen seen i seen i commentaire ci bi. ak seen numéro téléphone mën naa leen ma ci la fi nekk nga xam ne moo di xéwal yi ñuy joxe wala ngeen woote ci 88 628 02 02 sëñ Modou sëñ Modou Ndiaye mi ngi lay nuyu imam Bàcc Samb Ndeye Mbacke ak elas maestro mi ngi lay ndokkeel bu baax a baax tubaarkal la di la jaajëfal nañuy ci jàng bu neex bu tubaarkal la ñu ngi lay ndokkeel bu baax a baax waaye maa ngi nuyu baax sama yaay Caana Seck euh, dañu bàyyi xel bu de ci deuxième partie bi incha allah. wajjahtu kulli lil waduudi samadi saa xidmatin lil Mustafaa Muhammadi wajjahtu kulli lil waduudi samadi saa xidmatin lil Mustafaa Muhammadi الحمد والشكر من لله على نبي ولد عبد الله لله بذكر لك من انقليب مع النبي ولد عبد المطلب بدد لي شملات بالقاسم ربي بجاء المصطفى بن هاشم لي جاد ربي بنوال دلنا بالمنتخى المختار من عبد مناف دعاء السجاب بالمقفي ربي بالمختار من حسين أسأله نيل المنى بالاستلاب ولا خرور بنبي من كلاب ليجد بخير وابني مضرا ربي بجاء المزدفى من مراد tey faadi abi raw di sox bi lii abadan bil muntaxam ni kax bi yallaaw yaa zal arsi wal kursi salli bi tasliimil alalwaay yaa rabbi soxli jumlatal mataalibi بلا إساب بن بن خالب بدي وسقل يقول زارنا وكل يوم بن بن فيري يا خير ناصر وخير مالك انصر ومالك بي بن مالك حبيتي وعيستي وندري كونك لي فليكن بندري رل الهدى ولياب جنانا بالمصطفى المختار من كنانا جد لي بما بينير خيما وخيرا بمن هدى خسيما نششنا بي من جوار المسرقات ومشرقي بالمصطفى ابن مدركا بارك لي اللهم بالخياس بمن جعلت دنيا إلياس انصر جنابي عند سير وعدر ولك خرمني بجاه ابن مدر تفضلا على يا ربي أنصار فيك وفي خير الورى نور النسر هاديتني يا خير آل الخلوان أنجزت لي وحد بعبد الإماد وعبد لي فدلا إلى الجنان يا رب كل بنبي أدناني باركة صديق والفاروق جميعا وجه المفروق والمفروق barakata sidiqi wal faaruqi jamiatan majmuu'i wal mafruuqi akrama rabbul arsi zaan nuurayni wa waalidatayni fi daarayni sabat saabatu nabiyul aqyaar alayhim ridwaan mudral asyaa nafa laynu man law laysu moo ما ليدا فجل المخصوم رفع بدر الإسلام وسوزا الفجار والسلام باب ما يسوع الخناس وسر من لنا خناس بانا لنا تويد وابقمها تسوب بمن إذا نخم أدية الله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 ñu ngi ndokkeel ñëpp noonu mu mu mu kiiwaatee jotaay bu tarkal la euh, ñu ngi daal ba Aziz Mbaye ne ca géej waaye tarkal nee na mu ngi lay ziar bu baax baax mi ngi teelu waxtaan bi macha allah tarkal Aziz ma lay ziar bu baax ma mo sama professeur la xam naa sa élève bi ñëwagul waaye léegi ma ñëw incha allah ngeen woote ci 88 628 02 02 Ismaël fekk publicité yi yemb na ngeen publicité ñëwaat incha allah dugg nag ci deuxième waxtaan bi incha allah deuxième 02 02 88 628 02 Ismaila bu yembee ñu dem incha allah. wa mawlaana muhammadin ay cëleen ñu dem Parcelles Assainies Global Textile dem seeti Assane Fall Assane Fall mii ne woon naa leen neexal leen ko dëkk ak moom ndax mu jox leen ci tissu yu baax yi Assane Fall mii moom mooy jaay tissu yu baax yi ca Parcelles Assainies unité 12 ci wetu Sénélec ba ñu ne brodé Lafaya Assane Fall ko fii indi ñu ne brodé Pirxa Assane Fall brodé Marie Gueye Assane Fall jesner yu baax yu qualité supérieure yi laa wax demal seeti Assane Fall brodé cotonnade basin riche bazin cotonnade jesner bazin contre jesner bi xew bazin Chérif Aïdara mooy bazin bu bees bi génn waaye it pour jigéen ñi til sable ya til simple til découpage ba brocart pour hommes et femmes dentelle ya paillettes ya voile loo bëgg am na ko waaye soie pire foofu nga koy fekk wax cuub foofu nga koy fekk ba tey pour góor ñi wutal fil à fil yu baax yi fil à filu qualité yi fil à fil simple yi waaye nag pour jigéen ñi dañoo am ay drap yu baax a baax a baax a baax a baax ay dra de lit yoo xam ni macha allah am ay couvre yoo xam ni doo ay couette couette ya moom beneen affaire la rideau yi nag li ñu am ci rideau pour salon rideau pour chambre à coucher du benn de bu leen ko jaawale de Assane Fall global textile ndaw leen seeti ko nekk fii ci Parcelles Assainies unité 12 ci wetu Sénélec bi Assane 78 193 35 35 day jaay gros ak demi gros cay Assane. ilaahi ma jug ngir teeru bis bi ma saaf. bis ba yaayoo way ba geex mooy màggalu ko Tuuba. Rythme Couture di ab entreprise buy yëngu ci wàllub ñaw góor jigéen mag ndaw ay yére yu baax ngir waajale ko màggal Tuuba ji ni mel te rax ci dolli ay xale yu xarañ yoo xamante ne ciseau moo daal di damm seeni loxo. ñaw dong la ñuy def tey nag ànd ci qualité yoo xam ne kenn xamul li lan la rythme couture ñu ngi géejewaay en face garage BRT ci côté station bi am na beneen bu nekk marché njaareem ca géejewaay wetu forage gi ni mel ñu ci 76 901 24 84 rythme couture la marque du style moom sëriñ baa ngi mooy sunu mbégte nan ci taxaw teeru ko mbég gu njëkkoog mbég ngir borom Touba. jërëjëf tubaarkàlla ñu ngi ndokkeel bu baax a baax ñi ngi xam ni duñu ngi ci palaato bi du ma taay dama présenté jàmbaar ji nga xam ne moom laa njëkkee tey nga xam ni moom habillé Alaaji Alla Seck borom Xitma Couture nga xam ni instant nag mi ngi en promo 25 pour cent da ngay dem Géejawaay ci sol gu rafet te jot. xam naa suñ tubaab ñoo ci coleen gi xanaa. coleen gi waaw da nga xam ne Alaaji Alla Seck boo demee Géejawaay Massa Diallo en face euh, te BR garage BRT bi en face station bi boo demee mu ñëw la ci laxasaay yu baax rafet jot nga xam ne boo demee jumaa a benn bàyyi fal dolu tey boo demee dañ lay xàllal ne la kaa nga jàll tarkal la te instant yi mi ngi promo mi ngi jaay yu yomb yoo xam damaa yaakaar àll day may fi mu ne woo leen ko ci 77 209 06 49 77 209 06 49 ak promo bi nag moom ajuma lay jeex ajuma bu weesoo loolu maa ngi ànd ak tarkal ki nga xam ne moo di Alaaji Goloba Textile moom taalibi Cheikh Mouhamed Fadel la bëgg loolu sëñ Fallou Mbacké taalibi Cheikh Abdou Karim Mbacké borom Makaari ma axlaa bu ngeen bu ngeen ko mu dem Parcelles Assainies fii ci sa affaire Sénélec bi mu jaay leen ci laxasaay yu ñu ñëwagu bu ci si lu rafet yoo xam ni rafet na yomb na bu ngeen demee woo leen ko 78 193 35 35 78 193 35 35 waaye ngeen woo ma ci 88 628 02 ma may leen 88 628 02 02 rëdd fekk am ku nekk li mu jël ko laataa loolu euh, sëñ Modou xam naa da ngay laa ngay tuuti ci xasida a ah euh, salaamaaleykum mbokk mi. mbokki maa ngi lay ziar. allé bëgg bu baax. noo tudd ak foo ñu Aziz Mbaye. Abdou Aziz Mbaye moom professeur. Abdou Aziz maa ngi lay ziar Mbaye. Abdou Aziz daw maa ngi koy ndokkeel di ziar waa Géej waaye di ziar madame Mbaye ak tànk bi. Abdoulaye Aziz moom professeur moom moom sunu sunu waay la taalibe Cheikh Béthio bi taalibe Seydina Thioune Seydina euh, seen Cheikh Saliou Ndigal Thioune ñu ngi koy ndakkat baax sëñ sëñ Aziz Abdoulaye Aziz Mbaye moom sunu soppe la ku baax laa sunu professeur lu tarkal la mhm. maa ngi lay jaar a baax euh, sëñ sëñ euh, sëñ Modou mhm. nga daal ñuy mayel tuuti ci mandat bi antanda nga nga laal ko ci suuf rek salsara nga ngeen bëgg waa Rési waa Rési la ñu bëgg maa ñu xam ne yow sukkuri liman ñu ko tuuti rek en attendant ñu dugg nag ci dëgg-dëgg nag deuxième partie bi nga xam ne moo di wal baladu tey bu taarkaal la salaamaaleykum mbokkam salaamaaleykum ñu ngi lay tudd naar noo tudd fa ñu woowee maa ngi tudd Fallou sëñ Fallou maa ngi lay ziar noo sant sëñ Fallou daaw na sëñ Modou Tarkala maa maa ngi ziar maa ngoor yëpp taalibu Chérif Wuluna yi maa ngi leen di ndokkeel di ziar Chérif Wuluna ngeen yàlla doo saa borom yàgg ko fi lool doomu Cheikh Sidi Bouye suñu jàmbaar ji sëñ Modou ñu bàyyi rek taakàlla waa Rési Sarsara lañu bëgg ñu ko <laughs> doo dugg ci waxtaan bi ande war حمدي وشكري لمن كل بزارة له ردا دون صوت إلا سرسارة لا زنائي وردواني بلا سغد مسخاد لي من بني ديمان أنصاره لله كل للدى أبار مكرمة من أردارنا وفيها جامة من سارع إن اللسين إن اللسين إلى سرسارة سرسارة سرسارة سرسارة خرخصدو زيارة الفائر خدرني أو سار إن الذين إلى سرسير غن غنو زيارة الفائر خدرني أو سار جزاك يا خلو إبراهيم مولاك خير الجزاء والمنى داريك أولاك فاعلم بأنك inde sooriɗan abadan agagani mugafe دنيا وخراك فاخدم على صدقي والإخلاص مجتهدا بسر والجهر كي تنمو مزاياك ala waa rési la ngeen bëggoon waaye nag alaaj àlla sekk xidma couture wax naa ne ko léegi-léegi mi ngi géej waaye mas njaareem te xam ngeen ni sëñ Muntaxa dafa joxe warmaay Touba na ngeen ko warmaal coleen gu sol coleen gu jot te murite te xam li ma def nii xam ngeen ne murite ne toirkal la mu bëggee njaxas yu baax ak eh, ni sëñ Moodu solot ah ay ay xaftaan yu doy waar da ngeen seeti àll sekk xitma couture mu ñawal leen ci yu baax li ngeen neex ma dafa nekk à promo promo bi nag àjjuma lay jeex yow mi bëgg nag ñaw bu baax da ngay profité wala promo ba jeex promo bi jeexee prix day yéeg comme instant prix yi wàcc na vingt cinq pour cent luy jar vingt mille di 15 eh, mille lañ koy jaayee lu jër 15 mille 10 mille lañ koy jaayee kon na doo leen gaaw ci Xidma Couture maa ngi koy ndokkeel baax a baax taalibe sëriñ Abo ñu koy ziar bu baax di ko ndokkeel di ziar boo atelier bi ñi nga xam ne jàpp ci liggéey bi su ma limee ba jumaa maa ngi di ziar atelier bi eh, eh, wal baladu tayyibu ah, waaw wal baladu ah, tayyibu xam ne moom it Tarkal la ma bëri na lool ah, junj rek la ñuy indi mhm. mooy généalogie yonent bi Euh, yonent bi ki koy jur euh, nga xam ne waa waajuram euh, maanaam ki koy jur ki jur kooku mhm. abdullahi abdul muttalib a ko jur abdul muttalib achim achim abdul manaaf abdul manaaf na xusey xusey kilaab kilaab kaab mhm. noonu la koy limi ba ci maamam gu ñuy tuddee adnaan mhm. adnaan nag yonent bi wax na ni kuy lim ay maamam ba egg ci Adnaan yemal foofu. Hmm. parce que diggante Adnaan ak yonent bi. Hmm. Hmm. Euh, mind amul. boo déggee ñu wax mind amul boo diggante boo weesu Adnaan mind dafa amul. moo tax muy ragal nag njuumte am. moo tax mu ne kuy tagg ay maamam ba egg ci Adnaan. même soppeeku ba sax Seydi Hadji Malick ba muy ba muy tagg waa muy tagg euh, yonent bi. ci Adnaan la yem ah parce que boobu. Mhm. Ah, njuumte la ñuy bañ. parce que mhm. généalogie yonent bi. Mhm. Ah, diggante Adnaan ba ba ci eh, xasida El Hadji Malick boobu. Ah, ñuy wax xilaasu zahab. boo demee ci biir bi muy tàgg yonent bi adnaan leem ah sëñ tubaa ci xasida gi way jox tukulli lil wa doodi samadin za xidmatin lil moustapha muhammadin moom it ci adnaan la layam waaw <laughs> wallaay wallaay ndeysaan tarkal waaw moo tax xasida la goo xam ne daal ci tënk ah daf cee tagg yonti yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam waaw ci tëj mi ngi noonu euh, taarkaal euh, lii nag day day wane que ni mag ñi ñoom ñëpp ñoo bokk fi ñuy déggee mhm. bu Maodo euh, romboon àddinaan Bamba yam ci àddinaan mën nañoo xalaat waaye ñoom ñaar ñëpp dañoo bokkandoo yam ci àddinaan taarkaal ci taarkaal allah mi ngi noonu ah, bokk maamam yëpp nag ay sang lañ waaw ah, ndax lam tasal fi dama ili kaw ni tuxtaaru déggal bursi ah, lakkal mu du neex na de fii la micro baa ngi yëkkati ma lab tasal <laughs> nga xam loolu dafa ah, sunu borom du jóg di ko tànnal moom yonent bi ay maam yu góor ak yu jigéen ba muy gane jamono tuxtaaru lakkal umma a dégg bursiyu allahu akbar xam nga xam bi xam nga at moom wax nañ jigéen judduwul sa at ma ah. jigéen yëpp ay doom yu góor la mu mm. ëmb ngir tere la ko yonent bi mm. at moom wax nañ ni sécheresse amul Ah, maanaam loolaal mu saf suukar ah, at moom ah, wax rawatina sax guddi gi mu gane jamono mhm. wa tawaalat bushra al xawaatifi xat wulidal mustafa wa sallam keroog da ngay jékki ba yàgg nga dégg ci kaw jaww ji daan war na ndax ki gën ci mbindee fi na jamono di ko dégg ci kaw jaww jaww ji ndokkalante war na ndax ki gën ci mbindee fi gan na jamono nga xam ne keroog wax nañ ñi Euh, keroog kaaba gi sax ci jëmmi boppam dafa jeng euh, ba yàgg mu sujjóot ngir màggal yonent bi nga xam ne rab yi gënoon noonu nga xam ne daaw ñu laale sax seen biir keroog daje nañ ci guddi gi saafante ba ci jën yi ci géej gi sax ngir xéewal gi njëg ci guddi gi naa dem ba lekk moroomam daal koy bàyyi bàyyi ngir xéewal xéewal gi ñu yëg ci guddi gi nga xam ne moom tax ñu tuddee ko la nuit de la délivrance moom bi ah, guddi gi moom la ñu tuddee la nuit la nuit de la délivrance ah, moom ndax yonent bi mooy la source euh, de la création ah, xam nga bu bu bu bu du toon yonent bi yàlla mm-hmm. nee na du mu bind dara ah moo tax mooy la source la sëñ Tuubaa nee na keroog bi muy gañ jamono nuurun azimun euh, xat yara euh, bi xusuura xaysara oh, man kaana fii ummil xura makkata xayru urumi nee na keroog makka dafa leer ba da ngay toll Màkka di seen pale palais Césarine Italie nga xam ne iwaanu Kisra palais ah. romain yi keroog ci guddi gi dafa màbb buur ba fa tëddoon moom la ñuy tuddee Kisra ah. keroog buur buur ba lal gi mu bi mu tëddoon dafa damm hmm. ngir tiit ngoo gaar tukkee ci leeru yonent bi ah, amoon na benn euh, euh, ñaari empire hmm, hmm. euh, l empire yi ñaari empire yi mooy perse yi ak romain yi wax nañ ñi amoon nañ benn benn maanaam nil Ah, boo xam ne dañ ko daan jaamu yàlla mhm. waaye keroog bi gentu yàlla ba alayhi salaatu wasalaam nil nag mooy dex mhm. ah, keroog dafa tariir mooy dafa ñiis ba jeex tàkk sawara suñ doon jaamu di milliers mhm. d'années wax nañ ni sawara sa guddi googu ay xërëm la jud guddi googu sawara sa dafa dafa dafa dafa fay kon nga gis ni mboolem lii lii lii lii war a ci wàllu wàllu xërëm ak wàllu lu yàlla maanaam ah, gërëmul ci guddi googu dañ ko fay moo tax wax nañ guddi gi euh, seytaane ci boppam dañ ko dàq sax mu yëg ci ka asamaan yi dem mm-hmm. nga xam ne bis bu bis bu bis bu yéeme la bis la boo xam ne تتبه بك الأسم والله بك ألياه بعدها ألياه keroog guddi yi ak bëccëg yi ak waxtu yi ak suba yi ngoon yi dañuy kiiturante ku nekk di wax naan sama sa morom naan ko ah, maa la gën a tedd ndax maa la gën a jege wàcc sang bi mm. ah, di yonti almet alayhi bu juddu woon guddi rek guddi ne maa gën waaw xam nga guddi gi da koo xëccoog bëccëg gi ah. guddi gi eh, boo gisee eh, bi fajar di fenk mm-hmm. ak bi bi guddi gi di di jeex seen intervalle ci diggante intervalle boobu ci la gane ndax guddi gi nanguwul bëccëg gi jël ko mm, bëccëg gi nanguwul guddi gi jël ko ñu xëccoo ko seen diggante ci intervalle boobu ah, euh, wax na ni sax boo amee lu demee ni ndox ci mm-hmm. guddi gi ah, nga wut di diggante boobu vers les quatre heures jëm cinq heures di matin mm-hmm. bi fajar di fenk noonu nga wut lu am lu deme ni ndox ah, tari ci faatiya ayatul kursi mm-hmm. ixlaas ñaan sa soxla sëñ Tuubaa nee na ñaan naan ci moom la ndox day dindi ràgg xol ak ràgg yaram ah, feebar mu fekk si nit da koy eh, da koy dindi ah, nga xam ne dem na sax ba ba wax ni maanaam day dàq sax pexey seytaane ci nit ki mm-hmm. parce que iria u mawlidil bachir yaa mi xiyaalal wa duyóor màggal guddi yonent bi day aar kër yi ak njaboot yi mm-hmm. ah, moo tax toujours di ko dundal lu am am am solo la waaye liñ ciy jànge rek mooy liir boo xam ne dañ ko présenté waa asamaan doo ko présenté waa suuf keroog lañ koy doog a gis wax nañ waajurum bu jigéen toog na ab biir ci guddi gi gisu ko mm, ndax boobu lañ ko waaw dem na ci guddi gi soog a ñëwaat yu malaaka yi ko yóbbu ci kaw ah, ci guddi gi soog indiwaat mm. nga xam ne wax nañ ni keroog guddi googu eh, soxna soxna fi ñuy wax soxna Asiya ah, di di di soxna eh, eh, Firawna ak soxna Mariama mi yaay yont yàlla Insa wax nañ ne ñëw nañ ci guddi gi ndokkeel si ko soxna Amina ci guddi gi ah, ngir yont yàlla met alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. gane gi mu ci gane jëm ah guddi gu màgg la daal macha allah barikalla lay euh, wax allahu akbar allahu akbar tarkalla wallahi la <laughs> ilaha illallah ah, neex na de tarkalla wallaay Modou moom moom dafa xaw a doy waar xam nga ah xam nga dafa lay cuq dafa a yëngal allah ah. mi ngi noonu wallaay mi ngi noonu wallaay dafa yéeme wallaay dafa yéeme ba fii ah. ah. balaa balaa fajar di jot dafa dellu waat hmm. ah xam naa ci ci wàllu rañaan ji hmm. ah ci lay wax hmm. xam nga yonent bi kenn da dul moom moom i bi kenn du moom bijaahi faaza xufraani aadama min baadan ibaat min anhaarin wa jannaati xanaa xamoon yont yàlla aadama keroog bi mu defee bàkkaar waaw ba mu defoon ci àjjana ci daraja yonent bi la ko yàlla jéggale ndax boobu dañu ne ko waaw dañu ne ko waaw ah, bàkkaar ndax dañ leen ci àjjana la dëkkoon Hmm. waaye bi mu laalee garab ga hmm. euh, ba lekk ca euh, maanaam fruit boobu ba moo sabab wàccam mook awaat ci kaw suuf ndax dañ ne leen xéewlu leen ci lu leen bëgg ci àjjana waaye bu leen laal garab gi ñu laal garab gi moo sabab seeni wàcc bàkkaar boobu mu defoon hmm. euh, wax nañ ñi ci daraja yonent bi la ko sëñ Bàmba ne la ko yàlla jéggale nga xam ne sëñ bi wax na wax na sax yonent yàlla Yusufa bi muy wax ne ci biir kii Eh, yonent yàlla yusufa alayhi salaam mhm. ah, bañ ko dugalee ca ca teen ba frère ya ah, nga xam ne biñ koy biñ ko sànnee bi ko freeram yi sànnee ca teen ba Ah, ba nga xam ne am na lu ñuy tuddee diligence mooy mooy xeetu chariot yooyu nga xam ne ñoo daan voyager mhm. ah, ñu bis boobu dafa am dafa amoon lu ñuy tuddee tempête mhm. nga xam ne euh, euh, keroog bi ñu egsee ba ci boori teen bi mhm. ñoom dañoo wàcc ñoom diligence boobu ñu ak ñi ci nekkoon dañ doon voyager wàcc di wut ndox far gis ko ci biir teen bi euh, génne ko jaayi ko buuru Misra ah, moo ko moo ko mbaay nekk la sabab ñuy génne ko ca biir teen ba ah sëñ wax na ni ak kaso kaso ba mhm. kaso bañ ko tëjoon kaso mhm. bu metti ba nga xam ne fa lañ ko tëjoon tamit mhm. nee na loolu ci daraja yonent bi la ko amee nga xam ne eh, eh, wax na ci eh, bil Mustafa akhrajal man naanu yusufa min sijnin mattinin wa min tilka rayabaati ah, nga xam ne wax na ne ci daraja yonent yi ci lañ ko génnee ci ci ci Euh, maanaam kaso bu tar boobu ñu ko dugaloon ak xeeti lëndëm lëndëm ak jafe-jafe yi mu amoon nga xam ne yonent yàlla Nooye ca ci daraje moom it ga gaalam nga teeroon mhm. ci daraje yonent bi la la la la teere nga xam ne eh, xeet yooyu yëpp ku ci ne nekk nga yonent bu nekk nekk nga ci benn situation boo xam ne waaye ci daraja yonent bi yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam ci la la suñ borom génnee ci situation bi kon nga xam ne eh, yonent bi daal moom leneen la daal affaire la tarkalla boo xoolee tey waxtaan bi dañoo dugg ci yonent bi rek daanaka boo xoolee xaat bi yëpp ci moom lañ ko indi waaye noonu la mën demee ndax suñ tubaab waxoon na ni euh, weer bi bu ko xaajee. bii da ci waaw salaatu sitta bi mag ay sitta. bii mu xaj ko teg ah, ah, bi mu ci ah, julli. ah bii salaatu muy julli. salaatu sitta. ah day julli juróom-benn weer bi mat xi sitta di tagg yonent bi juróom-benn weer. kon nag bu ñu waxee Sëriñ Tuubaa xasida yi alayya matxu ah. a kulla aami nee na ba keroog may sàngoo suuf du ma jóg ci tagg yonent sallallahu alayhi wa sallam ah, kon nag bu ñu waxtaan Sëriñ Tuubaa xasida yi mm-hmm. jël benn wàll weeg xaaj bi yëpp yóbbu ko ci tagg yonent bi kon wàcc nañu ah, waaw waaw wallaahi tabarkalla wallaahi sëñ Moodu tagg yonent bi ci la ci la lépp nekk wallaahi ah tagg yonent bi Ah, ci la ci la ci la ci la ci la lépp nekk Sëñ Tuubaa nee na ah, ci tagg yonent bi ci laa texee mhm. ah, ci la ma yàlla musale maanaam ci ci ci ci eh, eh, eh, ci la ma musale ci mboolem musiba yi mhm. yi may yi mu daan jànkonteel yëpp mhm. tagg yonent bi maanaam ci la ci la amee ci laa jéggee Asan ibn Saabit ak Kahab a nga xam ne eh, eh, radditu anil baaxi mm. eh, wa an xayri xalqihi wa fi matihi jaawas mm. sukaaban wa asana te ku ne xam ne ni asaan tagg na yonent bi mm-hmm. ba yonent bi simmi yéreem jox mu jox ko mu sol mm. ah, kon bu sëñ Tuubaa waxee ne radditu gërëm naa ah. ñu ne ko gërëm mu ne anil baaxi suñu borom mi nga xam ne mooy aji des yi wa an xayri xalq yi ak yonent bi nga xam ne mooy ngën gi yonent gërëm na leen ñu ne ko ndax nga gërëm leen mu ne wa fii mat ihi samay tàgg jaawastu ci laa jéggee asan ak kaar ah, macha allah ah, jaawastu kaaban wa asan macha allah tarkalla wallahi wallahi sin waaw daa bëgg may ñëw foofu wallahi waaw eh, xam fi ma ma bëgg dugal fan la yóbbu eh, dafa am benn eh, benn liggéeykatu yonent bi ñu anas ibnu malik Malick. Euh, Anas ibnu Malick. Mhm. Anas mu njëkk tudd xaadim rasul. waaw ah, ci jamono yeneen. waaye nag jamono ji boo bindee lettre bind ci xaadim rasul day. ah Tuubaa ah, Anas. Euh, sëñ Tuubaa bi muy dem ci géej gi. Ah. dafa gis ni euh, Anas dafa plafonné dafa àgg ci niveau ci digganteem ak sunu borom. moom fu sori te dara may ko ko lu dul dëkk ji mu dëkkoon nag. yonent bi di ko liggéeyal bi mu ko gisee nag mu ñaan yàlla nag. moom xaadim rasul euh, bind wax ne wajal maqaam yi maqaamal murtada anasin yàlla maa ngi lay ñaan maqaamay anas mi yonent bi gërëm ñaanu ñaanu maqaamay doon euh, waaye yonent beeg maa ngi ñëwaat maa ngi ñëwaat ah, moom ah, ñaan na ñaan na maqaamay anas mi daan liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon ah, liggéeykat yonent bi liggéeykat yonent bi waaw muy liggéeyal nag di liggéey ba egg yi ci niveau bi mu waxee ne euh, surtout xaadimal Moustapha misla anas surtout mujj naa xaadimal Moustapha di liggéeykatu yonent bi misla anas ba mel ni anas kon ça signifie que ni kon dab na anas waaye bi mu waxee ne barra anil quduusu mm-hmm. min kulli danas wa inda xayri xalqi jaawas mm-hmm. anas mooy wane ni jéggi na anas ndax dafa ni barra anil quduusu min kulli danas ko lay romb na ko seet te te doon na noonu waaye noonu laay. ku lay def moroom it na ni xel yaa ko man. lewet géej yoral mi den na waaye noonu la. ma jóg man de fas yéene liggéeyal Serigne Touba. ku gëm yàlla xam yónneen liggéeyal sëriñ Touba maqaamam sëriñ Touba amul xaw subul ko may wa yaxlaqu ma la taxlamoo naay sëriñ Touba ku not gaynde not seggang ba dax ñay mu daw kooku du soowo ki bay noppil te wey gis na laay rijaal yi mbàkke doo seeni moroom lim bu takku ci ñoom dañ leen a boom ñii ñu alag leen fab seeni koom bàmba du ñoom te dunu moom tarkal la yaa ngi woon fu baax sëñ Tuubaa bi ah, ah, ah, fu faw ñëw ci loolu mais mu ngi doon ñaan yàlla ngir mu jox ko garaati anas anas waaye ñëwoon ba ci biir xas dëgg que leen kenn romb na ko waaw xam nga ñetti étape la. Ah. bu njëkk bi dafa ñaan. Hmm. bi ci topp mu ne dab naa ko. dab naa ko beneen bi bi ci topp mu ne jéggi naa ko. xam nga xam nga waj eh, eh, wajal maqaam yi. Ah. maqaamal murtada anasin daa bañ nag way bi damm. Ah. maqaamal anasin anasin murtada la. yàlla maa ngi lay ñaan maqaamay anas mi yonent bi gërëm. moo tax mu teg ci nag bi mu tegee nag bi mu demee ba yàgg muy liggéeyal yàlla ba egg si niveau nag bu mu waxee ne surtout xaadimal Moustapha misla Anas. surtout mujju naa. man xaadim rasul xaadimal Moustapha di liggéeykatu yonent bi. misla Anas ba mel ni Anas. wallaahi. waaye bi mu ne barra anil xuduusu min kulli danas yàlla setal na ma ci bépp tilim tilim waaye da teg na jaawas su Anas nag. ba ma jéggi Anas. way ndax xel xalq ci yonent macha allah tabarkàlla mu ngi noonu loolu leer na sëñ Moustapha sama xol sedd na xam nga ma dama bëgg yonent bi te li sëñ xob lay dugg te Bamba xam ni muy ni muy jaar yonent bi wallahi wallahi ñu koy ndokkeel bu baax sëñ Moustapha yaa yàlla saa borom defal la jàmm amiin may la gudd fan ak wér baal ak xam-xam bi ci barke Cheikhul Khadim sëñ Modou Mourid bëgg naa ci yow lool lool lool lool wallahi yàlla na yàlla bi ak jàng yéen bi nga koy jàngee surtout ñun saa yu ñu la woowee nga jàppandal ñu ko te bu la neexoon nga ne war nga sa télé Sénégal yëpp ci màggal gi euh, boo ñëwee leer du la yokk dara waaye yaa koy def ak euh, xol bu sedd ak disponible macha allah xanaa rek ñu ci relation Sëriñ Tuubaa ak Seydi Hadji Malick koy tëjee ndax waxtaan bi taa may xaj di jeex diggante Seexul Xadiim waaw xam nga relation boobu li ma la wax. Mhm. Euh, relation bu bu sincère la. Alaaji Malick si ak Cheikh Ahmadou Bamba xaadim euh, rasul xanaa xamoon ni Cheikh Bamba. xaadim hmm. euh, rasul seeti na El Hadj Malick euh, ci dëkk bi ñuy tuddee Njarnde ci Kajoor. Njarnde ah, ah, seeti ko ab biir nag. Ah, bi muy ñibbi El Hadj Malick war na fas ak gunge Cheikh Bamba xaadim rasul. Hmm. yëkkati téere bu ñuy tuddee Jawaahirul Maani jox ko Cheikh Bamba xaadim rasul. Hmm. Jawaahirul Maani ba nag. Euh, dañ ko wërale ak téere bu ñu tuddee rimaax mhm. bu Cheikh Omar Foutiyou mhm. euh, bi sëñ Tuubaa gisee rimaax googu mhm. dafa bind ci suuf ni waman yurit euh, naylal anwaari wal maarifatun falaatu faarix rima a cheikhina umara képp ku nam am ay leer ak xam-xamu maarifa ñu ñu ko tuddee la connaissance divine bul tàqalikoo téere bi di rimaax bu Cheikh Omar Foutiyou Alaaji Si bi muy jox Euh, sëñ Tuubaa téere bi mhm. euh, daf ko boole ak ñett ñaari way waaw ah, te mooy euh, addiyatun mujibu mhm. hëjtilaabu mahabbatan yaa aywal xubbaabu ah, rabbuna lan xablal mhm. wisaal wa kaffana charal ziadal wasaal dañu sëñ Tuubaa téere bi ma la jox de addiya la goo xam ne li tax ma def ko mooy doxale cofeel sama diggante ak dal di dina ko yàlla yàlla saxal bu mu jokkoo suñu diggante mhm. te dàqal ñu noon bi tamit seytaane masha allah sëñ tubaa tontu ko ne ko jazakumu ah. xayral jaza wahabu ah. wa fil safal widaadu la tartaabu fa kayfa laa wal mustafa mujabu imaamuna wal xidla la la naxaabu sëñ tubaa daal di koy tontu ne ko yàlla muy feewaakoon ah. yàlla na la fay yow alaaji Malick ngeen gi fay te bul sikki sàkk mukk nag mhm. cellik cofeel gi dox sama diggante ak mhm. ne ko pourquoi pas loolu ba a am ndax yonent bi mooy suñu imaam mhm. kon ñun waruñoo ragal noonu bi te mooy seytaane ndeysaan ah te boo xoolee mam maram moo meññi Ahmadou Farimata waaw mu meññ mu meññ Mati Mbàkke mu meññ maam Ousmane mu meññ Alaaji Malick Si maam Maaram moo meññ Abibullahi Abibullahi ñi koy wax Balla Aysa mu meññ maam Mor Anta Sali mu meññ Cheikh Ahmadou Bamba xam ah, ñoo bokk maam kon kon ñoo bokk benn maam ah kon diggante bi rafet na te boo jàngee boo jàngee boo jàngee téere bi di Masaalikul Jinaan mm-hmm. sëñ Tuubaa dafa dafa dafa maanaam Euh, dafa dàq maanaam bépp wird boo xam ne euh, dafa nekk en dehors du wattu leen di dingat bépp wird boo xam ne dafa nekk en dehors du mouridisme hmm. ndax dafa wax ne fu kullu wirdin hmm. euh, yuridul mourida li hmm. hadratillahi walan yahida sawaun nintama ilal jilaani aw nintama li ahmada tijaani aw li siwa uma min al axtaabi is kulluhum xat an ala sawabi sëñ tubaa dafa ne xam nga baatu intimaa u ci arab mooy appartenance dani euh, wirdu woo jàpp fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillaahi wala wa niyahida maanaam wirdu woo jàpp selal ko wirdu wi des na la àggale ci yàlla hmm. mu ne sawa un ninkama ilal jilaani donte wirdu wi dafa askanoo Cheikh Abdou Khadre Jili te mooy ah. Cheikh Abdou Khadre Jilaani mu yàgg mu ne aw nin tamaadi Ahmada Tijaani wala Cheikh Ahmad Tijaani Chérif waaye yemu ci def ne aw listiwaa uma minal axtaab bi wala ñeneen ñu dul ñoom ñaar ci xutbu zamaan yi mu ne is kulluhum is xatan ala sawaab bi ngir ñoom ñëpp yoonu njub lañ nekk ba pare teg ci nag ci lu wér yàgg na ci wax ne éviter de critiquer hmm. c'est wér car ça peut vous entraîner à la perdition ah, kon képp kuy dingat weer bi ah, yooyu ah ci yoonu euh, sànkute euh, hmm. nga jëm ah kon boo demee ci euh, boo demee ci téere bi ñuy wax Minanul hmm. ah, Baaxil Xadiim bu sëñ Mamadul Bachir ah sëñ ma Bachir nettali na Alaaji Malick si eh, eh, moom sëñ Ba Bachir en personne daan na seeti Alaaji si eh, ci ñaari dëkk yi te mooy Ndar ak Tiwaawan hmm. te bu àggaan daan na ko teral xaayatal ikraama dayob teraanga moo wax ci téeréem bi ne dañuy tudd gaa yu baax yi ci kanam Alaaji Malick si ku ñu tudd teg ka ca des na ne bi ñu tuddee Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul Alaaji Malick dani Alaaji si dani hmm. ma fii na ahadun illa wa marru ilayhi min umrihi hiina yandamu alayhi wa yatuubu minhu illa ma kaana min haza rajuli dañu amul kenn ci ñun ñi koo xam ne mës naa def ci dundam loo xam ne bu ko fàttalikoo di ko rëccu di ko tuubal boromam lu dul waa ji ngeen tudd mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul moo tax wala Sëñ Tuubaa delloo na ko ko bind na xali ci xalimaam moom Cheikh Ahmadou Bamba di wax ni ah, wa ma taristu ak ah, eh, kuntu arifuhu illaa jaaltuka fawqa kulli bi ruta bi musuma am xarit boo xam ne jël naa darajaam di ko teg sa kaw daraja yow alaaji Malick Sy wa ma taxastu xalilan kuntu kuntu wa ma taxastu xalilan kuntu arifahu illa am xarit boo xam ne jël naa darajaam di ko teg sa kaw daraja la ko wax nga xam ne da ko maanaam dañoo fonkonte woon relation bu sincère moo doxoon seen diggante keroog bi bi alaaji malik si génnee àdduna Ah, sëñ Ba Balla Coro di rak Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul jël na xalimaam bind na tëxa dëma hmm. eh, rub nu diinum fii masasin una hmm. fasaara ilal jannati rabbiya malikun nee na benn ponk ci ponk diine yi màbb na alaaji Malick si ñibbi na ci àjjanay boromam ah, te loolu sëñ Balla Coro moo ko bind sëñ Mbacke nga ah, jël na xalimaam tam bind wax ni xam nga ko ne xam ne sëñ Ablaye Niass hmm. ak sëñ eh, eh, alaaji Malick si kii dafa nelaw dafa génn àdduna mardi ki génn àdduna mercredi hmm. ah, sëñ Mbàkke bu si jël xalimaam ne chamchun hmm. wa chamchun hmm. ama chamchin xaabata ah, fa bakkal waraali takkallufin azlam dafa ni chamchun jant ah, wa chamchun ak geneen jant bàyyee ko nekk fi waaw ama chanchin ci atu jant ah, mu ne fa bakkal waraa li tekka lu fin aslam ah, nee na mbindeef yëpp jooy ngir xam gi mu xam ni yu ñu xam ni seenug dem dina jur ak lëndëm ci eh, eh, jamono ah, te alaaji Malick si wax na ni sëñ tubaabu ko kenn toppatoon ku dul sëñ mm. Mbàkke Buso mm. ah doy sëkk ci wane ni sëñ Bàmba li mu nekk dëgg la ndax xam gi ma xam man Alaaji Malick Si eh, sëñ Mbàkke Buso ca ragal yàlla ba mm. sa xam-xamam yaatu ba sa dëggu ga ak gis nit muy def lu deful te tegu la ci yoon ku mu nangoo maanaam eh, yëkkatil sa satala nangu laa topp rek ah. li nga nekk dëgg la kon waxoon naa fi nii na sëkk ci yaram sëriñ Tuubaa doon sëriñ Seera Faal uh-huh. doon sëriñ maam Cerno uh-huh. doon sëriñ maam Seex Anta uh-huh. xuma naak nag tarkal sëñ Mbàkke Buso mi nga tëjee tarkal la mu mel ni que waxtaan wi am na solo doyo lu ñu sëñ Modou dama lay bàyyi rek nga yëkkati ñu dara leneen loo ñu may ci wala fal xasida lu mu doon rek wala waaye eh, sa awkat bu awkati ñëwoon na nga daal di may may sama way wax waaye xam naa dama koy leb rek du ñàkk wala rek nga léegi mag ma aw ko rek tarkal yow neex wala nga tëjee ko incha allah loo ñu may rek tarkal la waxtu bi jeex na loo ñu ma rek sañ sëñ euh, euh, Moustapha daal di collecture waxtaan bi tëj ko incha allah du ñàkk loo jot bi mayee boo ñëwee Touba incha allah daañu jàkkaarloo ci plateau ya wala du ñàkk incha allah magal gi weesoo daa ngi def benn plateau bu gën a boo xam ni mm-hmm. dina yëngu ci ci euh, wàllum intellectuel wala neneen nuñ ko waxtaan rek incha allah ñàkk bu soobee yàlla loo ñu may rek tarkalla laataa nga tëj kile daan ngërëmal kaw su yaa korango bala nu njariñal xun bu yaa ko sangoo Touba eh, ci kun lay téléphoné xel ma raw na béppes xolam baa gën a làmp mun jafal mees ah. ku neex baat na ma ñëw woy sa ngi tuubaan ku leen woy demu faatoo di tabitu baan sëriñ bee jara way mbàgge moo yayoo wallaay ndeysaan dama yaab ci te laaju may paas kile jar pase dunya te mooy ci uxuraan te saa kuy ngërëmam ngir nga làq bu suraan ay Sëriñ Tuuba awakaa dana la yal ku ray sàndarma ah? te man nga noon la yal ba yàlla fal noon wallaay avocat dina rayal dina layal. dina layal ku rey xam nga. mais avocat mën naa layal ku rey. alkaati olofal yi yaa ko bind luñ la bindal la olofal yi garaaw na de. loolu moom sëñ bay jaxate. sëñ bay jaxate mais gaam bi sa gaam. waaw gaam bi nag gaamu gaamu ngéwél la. ah <laughs> dégg xam nga lu jóg ngir rasulilah. sallallahu alayhi wa sallam wallaay oh. sëñ Moussa Ka ko waxoon de daa mel ni. sëñ Moussa Ka ko waxoon. lu jóg ngir baatin ba baatin ba baatin ba am xol. wallaahi. kon nag sant nañu bu baax. di gërëm bu baax. Mhm. opportunité bi ngeen nu may. aussi ñu exprimer wu ci macha allah parce que ñun sunu tay ak sunu gont mooy liggéey sëñ Tuubaa. wallaahi oh. wallaahi wallaahi. te kër gi gis naa ne diine bi kenn mënuñu ci. da ngaa baax. muy leeral TV. baax mën naa ni tur yi mën naa ndaw ci. Mhm. ba nopp nit ñi. Mhm. waaye yaatu na lool. ci international la ah, international la. kon nag yal na yàlla dolli leen jàpp. amiin bay amiin bay yokk borom kër gi yokk leen. amiin bay bu baax nag yow si naaw su ma. baax bay yow ndaw nga waaye yaa ngi bay sawar ci géej gi. jërëjëf bay macha allah. ñu ngi lay bàyyi xel. ndeysaan te it ñu bëri ñu ngi lay bàyyi xel. ndeysaan kontaan nañu na yàlla yëggale sa ndaw. amiin bay ndax vraiment booy dalal nit yar bi ngay wane rek. ndeysaan waxuma la dara ak yitte ji ngay jox. ndeysaan bay loolu mooy waral koo woowaat ci sa émission. mu sawar ci da ngaa baax mbay. waaw boo ko bu baax. Moustapha wallaay. Pierre Diaw. Pierre jaw Pierre Aliou Diaw bu. Pierre Aliou Diaw Géejawaay nga xam ni moom mën naa ni. moom moom nit ku baax la nday ji seex la nit ku baax. dégg naa mbaaxam gi Pierre Aliou Diaw. Pierre Aliou Diaw nit ko baax la dégg naa sa mbaax gi. waaw Pierre Aliou Diaw nit ku baax la moom daf may taxaw nee naa moom mooy sama conseiller technique macha allah bëri lu may dugg ci àdduna dama ciy waxtaan ak ah, moom macha allah ba bi may ñëw ci émission bi damay waxtaan ak moom mu may taxawu nag saayir ak baatin macha allah kon Père Alioune Diaw noo ngi lay ziar di la bëggee di nuyu nag sëñ Xaadim di sama sëriñ nekk parcelle mm-hmm. di nit ku baax Xaadim koo xam ni maa ngi koy bëggee mm-hmm. moom kenn la ci ñun mm-hmm. waaye nuyu Massamba Diop fi mu jóge léegi Massamba Diop bàcc Diop Mm-hmm. responsable. Mm-hmm. nekk ci grand parti nga xam ni. Mm-hmm. suñu xarit la suñu soppe la. bàcc maa ngi koy ñoom sëñ Babacar waaw. dégg naa mbaaxam nga xamante ne bàcc dégg naa mbaaxam waaw nit ku baax la bàcc mm, moom ñiy foofu ñëpp sëñ Massamba Dieng ñoom. waaw nuyu bu baax Pape may sa ñoom. xam nga. ak ñoom ñoom bàcc ak ñëpp rek. nuyu nag sama maam. soxna Balla jur sama way jur bu góor. Cheikh Mourid Mbay mu mhm. sëñ Modou Ablaye Fall Ndar mhm. sama way juru jigéen soxna Aminata Dieng mhm. ak samay soxna macha maa ngi nuyu borom Côte d'Ivoire soxna Ndey Cissé di sama ñaareel. seen mën nag du tokki seen tokki réew mi dem soxna Diagne nga xam ni moom itam mooy sama aawa di ku baax macha allah di nuyu ñëpp dëkkandoo yëpp ëpp jum léegi damay woo London Musique nga xam ni barki démb lañ doon def safar gu mag marché Sam moo waa marché Sam yëpp maa ngi leen nuyu nuyu di leen bégee kontaan nañu mbay boo limee rek da ngay jum waaw di nuyu soxna Bintu Wade Abidjan mm, solo bi tubaab moom ba mu kii rek la dugal statut naan ma émission bi sama émission macha allah ñu ak bokki Abidjan yëpp sañ bàcc njaay ñoom ñu yor ñu topp Burkina Faso ñu ngi seetaan nga <laughs> baax suñu xol sedd na ndeysaan bëgg nañu bàyyi la nga yëgalee eh, tarkal la émission kontaan nañu sëñ Modou saa yu ñu la woowee doo ñu gàntu da nga kiy ñëw ak eh, xol bu sedd ak cawarte mm-hmm. moo tax bu ñëwee loolu daf day daal neex tarkal la si Moustapha mm-hmm. kontaan naa sama xol sedd na mm-hmm. wallaay comme ni ko waxee sànq rek bëgg fentale indiwu la fi waaye mm-hmm. xam li la war ci muy sa mission mu liggéey si Cheikh Khadim mu kontaan nañu sunu xol sedd na xanaa ñu baale tàggatoo incha allah waaw li may tàggatoo rek mooy di la ziyaare euh, yàlla defal la tawféex ba li nga namm ci télé bi euh, sunu borom defal la ci lu kawe euh, sa njort di ziyaare sëñ Modou Mouride maa ngi koy wax bi may tàmbali sax ne moo sabab sama ñëw fii. wallaahi amaana naa fee bañ a eh, mm-hmm. xam. ndeysaan ah, waaye yàlla na ko yàlla defal lu mu bëgg. moom it mu bëgg àgg mu àgg fa. incha di ziare mboolem nag ñu ma bàyyi. Mm-hmm. géejawaay ñoom Ibou Dioum wax na ko mm-hmm. léegi. ñoom sëñ baabakar ak mboolem koo xam ne. ak sama rakk Ibrahima macha allah wallaahi 100% ah, ne ko pour mu seetaan ko. ndeysaan waaye maa maa ngi ziare mboolem daal ñi ñuy bàyyi xel. ah te xam ne eh, sëñ tubaa kenn du moom. wallaahi kenn du moom ah kenn moom. ku déglu xam ne ah, kenn du wax ni sëñ tubaa li lay wan ni amul morom. Mm-hmm. ñun ñu fi teg ñëpp kenn ku ci nekk. sëñ Serigne Touba amul morom bokkut mm-hmm. ak sama morom. déedéet ah lay won ne amul morom. wallaahi dëgg la wallaahi dëgg la <laughs> ah, Moustapha maa ngi nuyu nag imam Bàcc Samb. ñi doon dugg ci yi. Mm-hmm. imam Bàcc Samb siiratu nabawiya. imam Bàcc Samb waaw. dégg naa xam-xamam. waaw dégg naa wilaayam. kéemaane wallaahi moo kuréelu siiratu nabawiyya yëpp mhm. ëtt la boo xamante ni moom mi ngi RTS maa ngi jéggulu ci tudd bi sax nga xam ne dafay def étude diine mhm. nga xam ni kuréel gi mu yor man naa ni mat na ñaari junni nit macha allah ci ay soxna yoo xam ni ay mhm. nabiyaan lañ ak yi góor ñoo xamante ni si yonent bi rek julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di def ay ndaje yu mag ci bi kon noo ngi nuyu waa siratu nabawiya yëpp ma tuddee imam bàcc sàmm rek imam bàcc yu baal ñu des incha allah édition bii ñëw mhm. yéen leeral la ñuy jël ngeen couvrir euh, amul euh, avec plaisir euh, affaire bi donc couvrir may na plateau ñu waxtaane ko ci yonent bi incha bi fii jeex na tarkal la kontaan naa te nag plateau bi dafa géej waaye macha allah tarkaala 100 pour cent Guédiawaye la tarkaala maa ngi ndokkeel ñëpp di ziare ñëpp bëgguma lim bu ma limee damay juum waaye maa ngi ziare képp ku ñu bàyyi xel di remercier baax waa ki nga xam ne moo jël ci laxasaay bi wax naa ko léegi léegi alaaji àll sekk borom xët ma couture di 77 209 06 49 fukki tey lañ yaakaar naa ñu ci 12e safar fukki plateau ak juróom ak ak ak ñaar du caaxaan te euh, bu ci nekk la ñu sol bokk la ñu sol buñ ci sol solaatuñ ko taakaan te loolu ginnaaw yàlla ak moom moo ñu ciy jàppale baax ñu ko ñaan yàlla saa borom mu defal ko jàmm ko gudd fan ak wér ala jàll li nga bëgg yaa ko xam na ci barke Cheikhul Khadim ñu ngi lay ziar bu baax di la ndokkee di wax gars yi nag ku bëgg nag ki la saa yot yi te rafet dawal gaaw ci boutique ba euh, Guédiawaye en face garage BRT bi en face station bi tarkal la daw leen gaaw balaa jeex mbokki jërë ngeen jëf kontaan naa ci yéen bu subaa jàmm incha allah heure même télévision incha allah baarik lana سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه Farewell. Gambian people Leral TV is back yes we are in Gambia waaw kay ngir ngeen am ay good information right now you can get it with our application Leral TV we can show you how you gonna to get it step by step yomba na kay enfin prendre le temps de lire et de s'informer véritablement détente loisirs l'actualité ay xibaar yu wóor ak ay journalistes yu l'actualité avec les plus belles signatures du Sénégal. ay reportages yu yéeme.